sant bu baax di leen ndokkal ci weeru koor wi di tàmbali sama cant ak sama siyaar jëme ko ci xel général des mourides sëriñ Mountakha yàlla na fi yàlla yàggal ko te wéral ko di ndokkal jullit yëpp ci weeru tedd wii nga xamante ni mooy saxrul Ramadan mubarak li nga xamante ni nag moom laa ñëw tey ci néegu yàlla bi ci ndigalu sëriñ bi ci li nga xamante ni weeru koor wu nekk jaam bu nekk te man ko war nga koy def di jàppale jullit yi nga xamante ni ay jaamu yàlla ci lépp loo xamante ni mën nga ko loolu mooy samay tànk ñëw fekk leen fi ngeen nekkal ñu fi nekkal fi sëriñ bi ngeen di liggéey liggéey bu rafet liggéey bu sell boo xamante ña nekk Madina ak nekk Makkatul Mukarrama noonu la koy defee ngir sàmm ak ormal barab yooyu noonu kon bu fekkente ni da ngeen nekk daayira boo xam ne si turu ndiglu sëriñ bi ngeen ko jël la. ngeen yore jumaa ji di berne lu mat ay milliers de milliers de personnes ci weeru koor wi yoon def na ma bokk nekk taalibi Serigne Touba ñëw dugal sama loxo ci loolu wane ni lii kat maag yéen ñoo ko bokk. moo tax ma indi tey une tonne suukar ak fukki paketu kees tendre yoo xam ne paquet bu nekk vingt quatre lay def fas yéene ko tamit xam ne fii laa ko tàmbalee fas yéene tamit. ni ma ko doon def fukki fan jooje ci weeru koor wi ma day la ko Touba gi yëpp li ma ci man ndax lu ñu am sëñ Touba la tey tamit def lu baax jiital ko mooy li nga xam moo war jaam bu nekk ndax fii dëkkuñu fi saxuñu fi li ñu yàlla wërsëgal suñu alal dañ ko war a bokk jaam yàlla yi te sëriñ bi bi ñuy um koor wax na ni ñu ngi fonk jumaa yëpp ñu fay doge di berneel jullit yi kon jumaa ju mag ji nga xamante ne jumaay Serigne Touba la di néeg boo xamante ni néegu yàlla la ni ñu koy defee ci néeg yëpp di ko defee fii ngir ka julli yëpp bu waxtu jot joxe ñu ñëw fekk si fii dog bi. yaakaar naa loolu jàpp naa ni loolu moo war rek samay tànk di leen sant ko gërëm yéen ñi nga xamante ni may ngeen ma tamit opportunité pour mën a ñëw def ko maa ngi leen sant di leen wax di leen gërëm te xam ne yii ñëpp suñuy mbokk ngeen. suñuy mag ngeen suñuy nijaay ngeen ñuy nekk suñu rakk ni ngeen di taxawoo béréb bi tamit ñun ñu ñoo ko war a taxawoo kon jàpp naa ni bu ngeen ko defee ñun ngeen ko defal maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ak délégation bi nga xam ñoom laa boo ko àndal di liggéey ñoom ci dëkk bi ñu bokk si parti bokk gis-gis jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah Serigne Cheikh Abdou ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi nga xam ne moo toog jotaay sel xadim di la nuyu turu sëriñ Afiya bu sa imam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma bi yor jumaay Tuubaa waaye di la nuyu turu sëriñ Abdul Ahad bu sa Mutalib mi secrétaire général ak mboolem membre daayira bi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom ñëpp ñu nekk ci jotaay bi ñu ngi lay nuyu baax rek di la sant di la nuyu di nuyu mboolem ñu nga àndal di sant yàlla bu baax ci yàlla sunu borom ñu fekkale du toll ñaari fan ñett nga junjoon ne bëgg na ma ñëw ci jumaa ji indi sama addiya jàpp ci ndog yi nga woote ñëw def noonu loolu doon jëf ju rafet joo xam ne ñun ñi nekk fii doon lépp ci yow sunu xol sedd na ci sunu yaakaar bi dëgër na ci ndax ba ñu la xamee ba tey bàyyi xel mbokk yi ak bàyyi xel yoon wi ak bàyyi xel sëriñ bi loolu li ñu xam ci yow la ci jëf ji nga jëf firndee na loolu kon nag ñi ngi lay sant bu baax ndax loolu dafay doon loo donn ci say maam muy sa ndono nga di ko suuxat te yëg nañ ñi yow foo man di nekk ak loo man di nekk yaa nga bàyyi xel sa ndono te barab bii ñun ñi fi nekk ak yow ñoo ci bokk yam bis mënoon naa ñëw ñu yow woola ne la kaay ci bunt bi te boobaati bi nañ la ko waxee nga koy defee ndax dañ la fee nekkal léeg nga nekk fee fenn nekkal ñu fa ndax fépp fu li rafet rek alali sëriñ bi la foofu nit nekk di ko def rek sëriñ bi la ko defal kon ku yëngatu sëriñ bi yaa ngi ci biir kon bu ñu taxawalee léegi sëriñ bi sant mbokki taalibe bi yëpp ngir ñu ànd ak daayira Moukhaddamatoul jàppal leen ci nga ñëw tey ngir jëfe loolu def nga ndigalul jëf jëf yi ab taalibe jëf nga jëfi mbokk mu doon muy suuxat la mu doonoo muy taxaw ci diine taxaw ci taalibe ñi ngi lay sant bu baax di nuyu mboolem ñi nga àndal di leen sant di leen gërëm. di leen ñaanal yàlla sunu borom mi tax ngeen def lii yàlla na leen ci fàggul lu kawe seen jort ba ngeen ci mën ren bu déwénee ngeen mën lu ko raw te lépp luy seen bëgg-bëgg ba tax ngeen fas ko ci yàlla na leen ko yàlla yombalal ci bàkki Seexul Xadiim jërëjëf ji barab bi moom ñun seere rek lañ ci waaye ki tax moom liggéey bi mooy Serigne Touba fekk gi ngeen ñu fekk ñu nekkal fi murid nag moo waruñu ciy seere waaye jëf ju nër te nangu. day day day tag tagaat du yegg si jumaa ji waaye jëf ju fi yegg si rek sunu borom nangu na ko kon ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm di sant mboolem ñi nga àndal di leen gërëm ci turu daa Moukhaddamatoul Khidma wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. day jël en charge nit ñi di leen jàppale ci dogu ci weeru yëpp quoi kon ndimbal yi nekk na lu am solo. waaw digg bi noonu nga ñu koor ba weer wi jeex lum néew néew ñetti junniy nit danañ fi doge par bis. ñetti junni nii danañ fi doge par bis kon nag koo xam ne toog nga fa ngay toog yëg-yëg bi ñu am ñun ba taxaw ñu siñ te Sëñ Saliou joxuñ ci ndigal 2005 ba tey nga am yëg-yëg boobu ba indi li nga sa participation def ko ci yaag ñun yéen yam jëf ca kon Sëñ Cheikh Abdou li muy def dugg nañ ca loola. ndax li Serigne Touba doon wax ci ay sëtam fas yéenaa bokk sët yooyu noonu ngir di dundal sunna si dëkk kon lii Serigne Abdoulaye maa ngi lay seedeel ni fu ngeen bëgg mu àgg fa ak nu ngeen bëgg ñu jàpp leen si tal leen loxo pour jàppale leen si a àgg tamit lu ñu si war a fere ñu wax ñu si jàppale ko fere ngir sëñ Touba loolu tamit maa leen ko euh, bokk maa ngi ci seen loxo bëgg ànd ak yéen fas yéen ànd liggéey bi nu ngeen ko soxla ak nu ngeen ko bëggee ñu defe ko noonu ndax lépp lu ngeen def si ndigal mun Muntaxaa ngi ko te sëñ Muntaxaa mooy sëñ Touba ndax bi ma yàlla dogalee mu war a dem daara moom lan ma joxoon mu yóbbu mu daara mu Saalum ma ne ko fa sëñ Koso ak sëñ Basiiru Buso kon yaakaar naa ne yàgg na ak moom kon tey bu ne ba mu nekk Sëñ Tuubaa yoon bii nga xamante ni maanaam mooy li mu yore ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ñun dañ si jàppale bu mu am si ndam kon daal maa ngi sàkk ngeen dool ñu ñaanal rek yàlla gën ñoo may di leen gërëm nag bu baax baax a baax di leen san sama xol sedd na baax rek jërëjëf